Comme rek day dem pour pour la saison man non la kay sa bu saison bu dem def un mois pour ñeu Je saison waaw non la kay ko day dem saison ñeu préparer saison ren du yomb ken xamul li xew suba mais ñu ngi suñu yoon di entraîner lu mu waré lu mu laaj la mu ci carton suñu borom dañ koy def waaw relève inshallah dama koy Je ci carton suñu borom. rek rek amna capacité pour daan kudul bombardier. dégg nga ma làmb xale kay def te Bombardier comme ni nga ko waxee champion la def na fi lu kenn deful doon roi des arènes deux fois tu vois kon bu bëreeg man amul lenn lu mu siy au contraire ñun ñoo siy gagné ndax ñun ñoo nekk suñu yoon mais moom mu bëreek man amul lenn lu mu siy gagné tu vois xam naa moo la siy gagné mais amul lenn lu mu siy amul lenn lu amul lenn lu ma si lu siy gañe moom tu vois kon man non du xaru ndax man lu ma non non non man lu ma gëm la lu nekk si man ku dul bombardier sa maa ko man nag incha allah li si kanam réew li bët ko combat bi taxaw rek incha allah dinañ xam fu wan nekk bi mu jege bëtam xam nañ seen bopp bu baax mais dañ ma ragal non déglul ba léegi déglu déglul ba léegi waxuma la tur ci waa man damay bañ ku may te làmbu rek bu jeexee rek jéena yaa may dégg mais dama ne la samay adversaire dañ ma ragal kon man yoon la ma dem bëri jëg bombardier yaa may dégg te si kattanu suñu bonu bu nu bëree dinañ dinañ xam wane fu mu mujjee bëtam. mais est-ce que boobaa dañ ñu ko que ñi la fi dese ci say morom. bari mm-hmm. Sa Thiès ngi fi ko fi. waaw mais samay morom dañ ma ragal fii ba suba duñ ma jël wax ji mën naa nekk fii ñuy ratatati rek mais ku ku tëdd si sa ñeg boo tëddee sab lal ba yeewu ba tëdd xalaat ne rërëg di di di nga bëreeg rërëg sa sa déglu rek sa waaw mais mooy li ma la wax xam nga làmb ji dafa bëri ay tapet ñoo yàq làmb ji. suñuy moroom nañ ñëw ñu bëri suñu biir waaw si one second. mais foofu bi muy door. waaw waaw sa morom yara doon daw jëm. waaw doon la bañ. waaw dootoo bëri yoo pare yow bokk sa waa ah, ay gris moo liggéey. waaw ñoom tamit bu liggéeyee ñëw ma bëri ak ñoom. doo seet loolu la. no non du xool si ñoom lu tax may xool si ñoom ndax man dañ ma ragal nangu ñu maa jël ma dem. foo xam ne ñëpp dañ ko fee raj dañ kaa ragal ma ñëw ton ñëw bëgg affronter moom bu ma ko daanee kooku ñoom ñooy liggéey fekke si ma ci vois sama kanam rek laay xool te waa Thiaré dañ ma yónni yàkkamti ma. man bëri naa mbapat ku ndaw <laughs> bëri naa ñëpp boo xoolee te kenn mësuma see sonal gars yi ñoom ñooy yor seen i maanaam ñoom ñooy wax rek mais man ku xam Reug Reug dëgg nu muy bëree ku ñëw mën naa bëri moom mais yàlla suñu borom damaa may ma mën a bëri poids man kenn maanaam tey ji kenn du ne man mënumaa bëri poids ndax ñi ngeen gis ñëpp ay poids la ñu ma bëreel te damay bëreeg ñoom jaay leen jeunesse jaay leen fëggu fëggu xale daan leen a avec la manière. làmb ji dañ see sonn si juróomi personne juróomi personne chaque jour ñooy bëri seen biir six ah six nañ waaw chaque jour ñoom ñooy bëri seen biir dañoo sonn si loolu yoon la Balla Gaye Boy Niang combat la logique la yoon la. Ama Baldé Modou Lo combat la Gris Bordeaux Gouye Gui combat la Eumeu Sène Sa Thiès combat la Reug Reug loolu lañ ko war a def lamb ji ubbeeku grand contre petit lamb ji ubbeeku quoi man sama gis-gis laa wax na yee xaw ma nag keneen ku nekk sa gis-gis man sama gis-gis laa voilà. waaw combat ndax Siteu mu ngi entraîné mu ngi entraîné. mu ngi si combat bi en tout cas te bu ñëwee di ngeen xam ne mu ngi si combat bi. Siteu bu bu bu toogee ne xalaat ne xelam ne que mënta daan Papa Sow la préfère bàyyi bëri. non waneegu ko ba léegi. waneegu ko ba léegi waneegul bërëm ba léegi ndax maa ngi kontaan ak moom xam naa li nekk si moom. tu vois di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. tey ñu xool euh, ñenn si ñi nga xamante ne mooy mbëri tey ku ci yenn Sénégal dem États-Unis rek di nga jéem a dugal sa loxo ci mu mel ni wàllum MMA dafa mel ni léegi seen xel dafa dalal ci ci làmb Sénégal 100 pour cent wala da ngeen fa dugg pour cadre sport lan. non non ñun dañ dugg pour cadre sport suñu xel dal na si Sénégal ñun mënuñoo am lu dul suñu sport bi waaw tu vois kon ñun yan la ñu gis beneen sport boo xam ne dañ ciy meg moonin xanaa déggoo fi ma waxee meg moonin boo déggul meg moom maanaam fu ñu amee xaalis voilà ak jom ak bëgg téré suñu waju ak ñu ñuy andal amna 4 quatre combats laa am yeah. njëkk bi fan la njëkk bi maa ngi bëre 14 décembre inshallah Dakar wa Dakar 3 3 des. benn bi mu ngi am Paris benn bi Marseille benn bi États-Unis la yem mais xamaguma ben état la yam quoi. problème mu xaalis tak sama combat tu vois. man maa bëgg a bëri ak bombardier décision boobu maa ko jël. maanaam luñ la fay ma bëri ak moom. est-ce que du man lu ma gëm la man combat du tegee si man. promoteur yi ma mës dëgg yëpp ma ñu ngi may dégg li may wax combat du mës a tegee si man jënd ak jaay la danga naa lii laa man ma fekk si la. mbir mi lañ koy wax te dee mbër ñu si ala balance ñoom ñoo ko yóbboo seen bopp ndax ay ragal nañ ay tapet nañ ñoo leen ñu bëri seenu biir moo gën. ay indépendance yow tay ji man lan la xam nga len len la nangul quoi lambay sa métier yow ñu ñew wax la benn mbeur han ah, mbeur mom lu mu dédé di nga am 60 millions wala 70 millions yow féké lambay sa métier do ko jël beuré ngay tok bay indépendance tax gis nga mbeur nu mu mité dépense mbeur gis nga nu mu mité tey gis millions yi nii nga xey bay muy dem mais lolu mom luma kay mon mom lolu moom loolu moom ah, ko def wa deug yalla nak